te muy dox ci wàllu wërsëg wu yaatu lool ànd ak bayre bu yéeme lool bayre boo xam ne képp koo xamante ne ngay yëngu ci wàllu commerce wala nga xam fànn boo mënti yëngu danga nga ci yittewoo bayre boo xam ne mooy tax nit ñi mën laa jub si ci loolee nga nekk di ci mën a jëflante ak yow ci anam gën ko bëggee làmboo na bayre boo xam ne bayre bu yéeme la ak kaaraange ndax bayre ku ko wax rek faw nga man ci boole kaaraange ndax bayr bu andula ak kaaraange mën naa bañ jig boromam jaar bi nak bala lako liggeyal ko dañu lay sétal say mbir ba paré sét bobu nak kenn du ci fay lenn liñ ci jublu moy xam sa xam sa bidiw ban xéetu bidiw la ci bidiw yi ak ban waxtu ñi fenk ki waxtu wi sa bidiw di fenk ci waxtu woowu lañ lay liggeyal jaar bi nga xamne boko boo rek incha allah taala da lay daal di jàpp fi saasa nga tàmbalee gis ay xiiwal képp koo xamante ne yitte woon na ci rek mën naa wuti ci numéro bi incha allah su ko defee fépp foo mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di nga ci mën a jot jaaro bi nag nit ki nekk bitim réew mën na koo am làmboo na bayre boo xam ne nit ku weex ak nit ku ñuul ñëpp lay soppi incha allahu taala jërë ngeen jëf.